waaw tout droit ah. comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi kër ndjol bu sana ku doon la faal yi nak ngoy ngi ni ndjol bu sana ndjol bu sana kan moy sana sana ngi ni le grand capitaine le grand champion jaar na si beure voilà dugg si geej gi une deux trois mu jàpp sampaat jen bu dul jeun dina japp nako mom lañ togal ni mu nek ak rakam ndjol ak benen grand frère ndjol mandiga ñu fas waxtaan ndax ñom mëna wax ne mom moy sax papay njool ngeen baal ma mais noonu lañ ko mën a waxee moom moo ko yar boo leen déggee njool ñu koy dakkantalee sana sana ngi nii siyaar nañ la bëgg nañ la. Lamine naanu mbu. Hmm, daf yoon a jëm noonu koy fal ah. Ah. a jëm ma paax. Hmm. sana da wax olof nag li ma wax maire ah. léegi laa lay wax. njool am na ay supporteeru bambara. Hmm. supporteeru pël. supporteeru saraxulle supporter olof ñep ñi bëgg a njool yëpp dégguñu séeréer da ngay lu nga wax olof ibisa séeréer rake ndiki i da njool xay avant bo i leyana dara o gar yit o koñal fopa nget meen kaaga nama fi'o awa té ñoowun rek ten ba mi ndax nek neke te fina yito ten a inwanga xaajugu den leyne inooxi te ino yi ananana am arefon de bes ayir mamit mi yit yirmin i na jala yaam anda kete jala ta ɗoma ɗom te ref xar te ref njom i njom moom o ngaɗangano fi rek a ɗoma a ɗoma xano nan xu refna xano leel xu refna nda muña rek to ande keke a faafa faaf o refo maagum ɓeer na njom te yaroox na xa ɓayof min ndefɓuno maagole boye jola garana joom o na joom an coono ke ndefnana joom risque ke ndefnana joom est ce que o d' a pour mhm, te ret a maafi ke d' accord anum yaam nete fiya xama o ten mhm. neen fima fapes rek yaam in fa fapes njaleegu bo xaƴin xaƴa mena fapes ret maafir kel gara mhm. i ndaa koy jegimom maag i yem maafrel andame jegimom maag mosimo ret na koɓ it bo yam mafranga rek gatit gar mo mbin wala ngesanga mafranga wa mu jangi ñom sax xes rok no magi ret faalik kaga waru taw aha kaga taw bo jegim mom mag ndaw te nit o tena jegam mag a jega a jegam mag xam na magu momen xata bu momen o e ken te tangana jom ne galankor ke mbin dara ni ah, a ne galankor dara yam info ten kam isuk ne sax isuk ne ne kaya in foten eh. i ndefanga suk ne sax i ne ka ke ah. mhm, kon kaaga chance um a ref i hmm. eh. <coughs> ndiiki kon njool nu ndefanga no ne suk ne ka ke njool o moolo maaga ref mhm, o ah. mbaal na jeg na liɓ sax fo xa jegena liɓ mhm. nete jalta rek a jalta i eh. o ten soom ga'um koy na adna fe i mbir na jalta comme nete jalta o ten soom ga'anum billahi wallahi tallahi i yonami fo façon i mbi in xu refna nane tiga ama te jalta o ten soom te jalta neen ndetanga no maak ne tricher a mm, mm, mm. andiran a sax a wa dayer o ref o maak Ndiol o maagole fa njom ne neke coɓ ke mbetna nu mbaasa Ndiol te concentré o njom ne wala nu maƴano ɓisano maak o ga'anga te falig rek andi ye wiin ndefeeru meen moto xeer nda a moto kon a buka go maafra rek i a gara moof mbind ne i jalkee dara sax tus jalkee tus ndaa neeke sax mbaal ne i mbaal ne layanga o feet njoot nin o feet te gariid a nananaam daal a nananaam trop trop trop trop trop i i ngar na Njom wo ɓeera Njom xan i mbaag mbaxtaan fo na Njom njool ne ta maafritel avant o gara a jega waay introser na a seede a keen sana ten raxu njool Njom mais koy njool ten xupun chance ahupin wersek tarapo ke yin kene yin fo no siwole par exemple jolina jopirita média hay wine mbagu ƴetidin wine mbudan kete fiya winwege ana le jour le jour jom no te mafritel mm-hmm. xar wago ley ten ka ando naye a warano wago o wañ ten wala a warano ɓaat ten i jom jol koy ke fudanma mayer mm-hmm. yaam o ɗeetanga te ref o coownge ke jeg ina meeke den fi'u weeke am i jom neeke den maaf rek na mm-hmm. reta mboy gone sabugo yaqoox ande jariran maga ɓeerum lamin wasi jom a puudi jom bo ñaroog neke xaye i ino fop lengi ndef ino fop lengi ndef xu kiin a yenena o kiin ka andoona yee yit refee ɗat to ko a nqoox ka rek i ndaa ino fop fop meeke lengi ndef ka njool a fina fo ka lakas a fina fop fodanum yaam a layanga i mbir na jang na ñiñom ne jonga gen rek sutuim teen o lakas sutwee teen i ken rega ref mi na mafir ne leya comme njol ne te mafri tel par exemple ne te sagta ne te rokta a ɗapta he njom ne njol ne koy ke mat ma fi ten njol nange bufa mhm. to o refa mhm. wara waro bufa mhm. nda <coughs> koy xa ɓayum o ten a caf ma ndaɓana xa ɓayum a njig na bo xute xute fiyeerna na cafa ke it a waagano fina naxa ɓay axe i e, o ɗeetanga njool ke te maafta wiin o fop a ɓayo ndaa refee affaire a caf wala affaire keeke o kiin it o yakarange o retanga bo njom na wari xooxof yam ino weeke mi feeke anda ke damit umay i e njom fa ndaap refe ga'a meeke mo fegum a jega xa layuna ndiiki i e, meke mo fegum me koy a yiifes a refna njom naaga reng inoox ret i ret njom ret Mavir, ka felaxama koy bugum o fiyam yaam yaaga jegama je xaalis eh. yam anda pir ke yaaga naaka eh. na mi yaga kalis, eh. mi mi ma je xaalis bon ndetangaan ma ge xan jego kalis, ngara ngarangaan saxin i ku felaxama koy ten bugum o ya. yaakaar imi njom ne wax deg yaakaar inum de do an amé njom ne koy afa fa fa nda koy fa nda fe ten xupu ten pakit koy retam bo i njom ne ɗomaam i njom refe ga a bagage ke na fapes meke euh, comme keke bagage keke fapes a ɓisano maag ten soɓegum ten maaga rek ɗumoxin ret njom na i <laughs> eh, ret njom koy njom temps xan jangin a jega xano ena yaxaya ndongo lamtangano yo xana leyumo ten mhm. reta mana mbele ñeem de mbiya réunion me yaxu coxya mi njom ne mina jang kan mhm. xan keke leyane ke xana nanin mhm. i njom fat njangin de ɓaato mbi poids mbaɗole yahu i joom leyke mina jang kan i joom na fad jangin billahi wallahi tallahi ko ge'e gun newɗaat wala na doole of doon ano fo ma foog to yaaga jegaam warsak fe wiin a layaa njool xupaam warsak njool xupiraam warsak de i no moƴo i no moƴo siwe mi koy ref am refa koor ando fel in win mayu na affaire i njom <laughs> to yaaga na yaaga waagaam i njom to raab tan injom nara kalom mosi mo fiteni ngenin mhm. osir sir ñama mos na le mosama ñam xar baxay xar baxay sana jeger e sana generation fu mo def ani def generation in imaya mhm. imay amay ino in zampolino papizin papizin, ongotin, i eh. weke ombur jo joxam dimle yin fi lakas fi lakas in Maya trop acha ibatu nam tiit nañ jol comme tan wara bes weke opantika te xewit akonyale leki mbinne leki makonyale sa inga amen wa zoal moro mum pir fo panjabi na mu kan kum te batortin de ta bukku ta fa ay mbinne awe konyale fo morom pir keten meke na te bado sa dakino rek asa dakino yamo wat ni watni dangan bindum te dom rek rek awaram e awaram ke tax awaram ten refe wona sa dakino ka an ke wa faden er fanda pa nga nu ndap er callila fadanga nu njallik i er mbalaka fadanga nu mbalakir ku refna xutaɗatum nu ndet i nda nasada na saɗakino ka koy ten fe de yee ten dabiiɗe yaam o ɗeetanga ke taxna bo waasa puudi njom no famoro mum famoro mum to neke war asop soɓ njom fakna mo yaam i njom moƴmo bugna adna es to muñaama muñ damatin na i damatin téléphone ke hula eh? laya koy mi i <laughs> naagara bi kontaan na adna ah, refee dara adna faga fag nda keke neke dara raxiran i dara raxiran ga'a oxe ke mofna neke oxe ke mofna i oxe ke kiin jegee ndaf dum oxe ke yaate refo ndeɓ bo fa ndiik a taɓaxama taɓ retatim jom te gara a yoonata fa njool ken xa moƴun tem a ñoowanga fo ten parju ñowanga fo ten par jour xane xana moof meke moof meke ku refna xan yiifuma duqatik nda njool ten na saɗakinoox ka rek a saɗakinoox fi wiin we a saɗakinoox fi yoon teguma faak fe yoon teguma euh, fede faak te saɗakinoox fa den i acay kontaan naa bu baax amin <laughs> njoko njal na jaɓiye koy njol ten na siwa nang ndiki njol bu sana tegen xamul sana mais njol ñëpp xam nañ loolu den koy nangu <laughs> jaɓaan ba paax <laughs> droit ah. ñu ngi toog ak magu ah. nag sama toomaana label siyaar nañ la di leen nuyu di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp mhm. ñu métier bi ngeen di def nii leen yàlla defal ndam amiin ndam bu kawee kawee kawee ñu seet si woon sa rakk njool Ndiol bu Sana comme ni ñu koy wooyee nekk xale ngeen yar ko fii yar ko si kër gi yar ko si géej gi ndax kër gi comme ni ma ko waxee rek këru mool la mais Ndiol nan ngeen ko yare si kër gi ak si géej gi balaa ñoo ñëw sax ci affaire làmb waaw njool moom wax dëgg fa yàlla mhm. yar nañ ko si a nam bu baax mhm. mu am yar am teggin mosul dépassé benn magam mhm. mosul def lu ñaaw mosul xeex mosul xuloo loo wax laa njool balaa ngay pare njool ree ba jaaxaan di def comédien yoo xamante ne tey ji bu génnee sax da ngeen da ngeen yaakamti mu dugg si parce que da ngeen koy nam day wéetal kër gi mu nekk xale bu daal xale bu yaru daal waaw moo mën a wax daal ak mais ndiol bim commencé di dugg si lambot, parce que ndiol boko ko dafa xawa a ci ci ci jëmm deug la nak yax yi doole bi mu ngi fi mais boko xolé ci si day xawa ndaw est ce que gëmoon ngeen na fi yex fi ni mën na fa ay waaw xam nga li tax nañ mhm. ñun papa yépp mhm. bo xolé ñi encadrement yépp ay mbeul lañ. Mhm. papa yeeg ñëpp tout ça yépp ku ni jaay yépp ay mbeul lañ. xëy ya xam nak mo touti mais gëmoon nañ ne tay bu ci liggéey touti rek yalla dina ko dimbalé manam lamb ji ndono noonu la waaw non la dal mhm. te sa magam sana itam non la mo da ko beure ndiol te gis nga li mu def asaka bi sa ndiol defago ko mais nak comme mu ngi jéem xale la yalla na ko yàlla yóbbu foofu wala mu rombu sana mhm. wax dëgg fa yalla waaw mais ndiol da ko ëpp chance tax ndiol tombe nak ay caméra ak yoy non de ñom sana amuñ won chance bi ñu leen di wone di la di sétan waaw lool mooy problème bi la xam nga aduna mom day dox rek day dox wax dëgg fa yàlla aduna day dox mhm. mais nak li seen wërsëg la gor gor lu tuti tuuti yalla sunu borom dina la dimbali waaw bo ci baye sa xel parce que àdduna lépp métier la rek métier bo gisé dang ci baye sa xel am yar am ci yar am ci teggin respecté doomu adamay xam li nga bëgg ci sa aduna kep ko gis itam nga nawlo ko def ko ni sa bop bul xeb kenn parce que koñ gi amul xaar ma yàlla du mag du ndaw gis nga li mu am ni tay nit kenn ta jënd ni mën nga lu sees mhm. mën nga dem bitik ba jënd ay sees mais mëno jënd doomu adamay wa waaw la rek. ak li ngay won nit ñi. su rek nañ ñëw looy woote rek ñu jàppale la si. waaw mu ah, Ndiol ngi dem géej ba léegi wala si làmb ji la ko. waaw bariwul nag. Hmm. ah saison bi bu tey daal day dem. Hmm. wax dëgg ni mu mel si làmb ji tam noonu la mel si géej gi. Hmm. bu demee si géej gi tam géej gi day changé si moom wax dëgg fa yàlla moom daal. macha allah daal li ñu mën a wax. di ko yàlla defal moom. waaw ah, waaw. léegi la looy tëjee. waaw ah, li may mooy gërëm ñëpp. boo yi fi nekk ñëpp ñi tout ça sunu rakk yeeg sunu mag yi sunu yaay yeeg sunu lëpp mhm. ak yéen ñu fi ñëw. parce que lii yombul. Mhm. waaw déplacé doomu aadama yombul. Mhm. kon nit ñi buñ la fekk see rek. amoo dara dul ñaanal ñëpp. di gërëm ñëpp. di respecté ñëpp yow mi itam. lii ngay def nii yàlla na gën a kawe yow borom baax nga boo kenn bàyyiwoo kenn mhm. bi ñu ajee sunu mbaal mi fee rek ñëw nga seet si nu te wax dëgg fa yàlla defaluñ la dara kon nag dañ lay gërëm rek di la ñaanal rek luñ man rek ñu lay ñaanal si kàttanu yàlla mhm. jërëjëf la aduna amul solo noonu la nit moom defal sa bopp ni nit ñi rek xam nga wàcce sa bopp mooy tax nga mun a jàll si lu bëri waaw dëgg la sunu booy gërëm sunu booy yi waaw samay booy yi nga xamante ne wax dëgg boy booy mool yi xaaruñu xaaruñu ma si dara borom bëtu sew yi zoom ko waxee. voilà <laughs> ñoom ñëpp maa leen di gërëm Lamine di leen sant. waaw yi ñoom maam ko ñeeg. waaw doom yeeg rakk mhm. yeeg ñoom ñëpp. man mii di wax ak yow nii. Mhm. laaj leen su ma toogee. Mhm. affiche bi fi nii rek. mais xol gi dara newu si wax dëgg fa am xaaruñu ma si dara. lépp lu may liggéey ñoom ñoo ma ko gën a ma kontaan si ñoom wax dëgg fa yàlla. billaay wallaay aw ma seen fay daal li ma mën a wax. yal na leen yàlla def ay. ay borom daraja daal. ñoom ñëpp aussi xam looy yóotu sa àdduna mu doon lu baax yàlla na la ko yàlla defal. amiin voilà. ñu jàll si kii mbër si yaar nañ la. mbéy mi yi. sant yàlla baax a baax. tur bi la. maam ku ñu. maam ku ñu. Hmm. maam ku waaw maam ku ñu bu boyaar. sama toomoo la. bàyyi ñoom Ousmane Adam. Hmm. léegi yow sa relation ak Ndiol lan la. sama rakk la. Hmm. ndax baayam sama maam la. yaayam tamit sama maam la. te li ma mën a seede ci kër gi bari na. bi may bëri. nii la ma saan a jàppee woon. kon ñool mënuma koo ñaaka a jàpp. sama rakk la sama lépp la daal. waaw bëre njool noo gisee njool ci géew njool ci làmb ni muy comporté woo si biir làmb bëre njool doy na la wala doyul la. kontaan ci yow moom jaar nga si làmb dañuy dugg foofu. man moom kontaan ci rek. Mhm. ndax maanaam lépp lu ñuy wër ci mbër rek. Mhm. yaakaar naa ne suñu borom dénk na ko. Mhm. wax nga ko say biir wax nag. sana moo ko daax a bëri wante moo ëpp sana wërsëg. ndax la lu mu jël ci ay nag wala lu mu jël ci ay drapeau sana jëlu ko. kon nag sana nekkoon na nit koo xam ne tey jii. dëgg dëgg zéro faute. mënoon na ko wante nag bëggu ko woon. xam nga mbir da nga koy man ba pare te doo ko bëgg. loolu moo daloon sana yoon nag si diggante mag njool acca kon jaajëfal nañ la waaw sant loo ci yokk leneen li ma ciy yokk rek mooy na gën a yokk entraînement yi uh-huh. a respecté jaamu yàlla yi uh-huh. gën a respecté boppam uh-huh. ndax moom amul benn di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak wér la di ko ñaanal tamit magam sana sana caam waaye yéen tamit di leen ñaanal yàlla foo leen bëgg a rek yàlla ngeen yéeg fa jàmm si daraja Seydina moom si barke Seex Tijaan